ay njariñ yoo xam ne yenn yi dafa aju ci àdduna yenn yi aju ci alaxira ñu tudde ko nag majmahun ni dajewukaayu yaari leer yi maanaam lu ëmb leeru àdduna gu alaxira nam ëmbee njëriñi àdduna yu alaxira mu tàmbalee ci bismillahi sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman aw naka dananu sàkku sa ndimbal yaa moo aynu yow kii aji dimbalee wa bi ka te ci yow rek nastaayinu la ñuy sàkku ndimbal sunu boroom yow rekk am ndimbal nun nag ci yow rek la ñuy sàkku ndimbal ndax xam nañ ne yow rek ko amee haza lii kitaabun ab téere la yu sàmma boobu def na ko tudde majmahan nuurayni dajewukaayu yaari leer ya fii fawaa'idi daarayni ci njariñi yaari kër yi wa kullu lépp li nga xam ni fii nekk na ci moom saxiifun aji wér la man xoolunte lu ñu toxale la xan siqaatin jële ca ñu ñuy dëgërloo ci ñoom laa baax yi fa amul jenn aju doye di maanaam lu wóoru di fii muy nekk ci moom ne téere bii dama ko tudde majmahun nurayni fii fawaidi daarayni téere bu yàlla boole leerug àdduna ak gu alaaxira li mu ëmb nag ay xeeti njariñ la yoo xam ne yenn yi daa aju ci àdduna yenn yi aju ci àllaaxira mu ne lima ma ci andi lépp lu wér la jële ko ci ñu wóor dara lu ciy doye di maanaam lu ciy wóora di amu ci bismillahi irrahmani irrahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala muhammadin xaatimin nabiyin ki aji motli ñu yàlla solo wa ala alihi ak ci ñoñam wa sahbi ak ay saxaabaam almubaayihina ña di way jaayanteeg moom amma baadu daal gannaaw sant yàlla ga julli ci yonent bi fa inni naka man lamma raaytu ba ma gisee annaasa nit ñi yarhaboona ñuy xemmem fii taaxatillaahi ci topp yàlla wa rasuulihi akub yonanteem maha jahlihim ànd ak seenug réer wa kasalihim ak seenug tayeel nit lii mel ne man jamaatu dajale naa fi haadal kitaabi ci bile téere maa loo xam ne yu fii dunaa dana nu jëriñ fi duniyaa ci àdduna wal aaxirati ak alaaxira rajaa an yakoona ngir yaakaar mu nekk sababan di sabab li najaati naa ñeel sama mucc minal xasaabi ci mbugal wa niqmati ak mbugal ba tey wa sammaytuhoo te ma tudde ko majj ma xan nuuree dajewukaayu yaari leer ya fi fawaa'idi daaree ni ci njariñi yaari kër yi fa aqulu kon nag maa ngi wax mustaayinan mbir ma muy aji sàkkoo dimbandikoo bi rabbi ci sama boroom allësi yi boroom bi nga xam ne laa xawla amul benn xeetu pexe wala quwwata amul benn xeetu kàttan illa bihi dara muy nekk ci moom dong wa bihi te ci moom rek astainu laay sàkkoo dimbandikoo fi ay xaalin ci mu ci mbir sëñ bi daa tàmbalee ci bindaat bismillahi rahmaani tegaat ci julli ci yonante bi sant yàlla nag ba noppi baa mu waataat julli ci yonante bi ñaan yàlla dolli ko teraanga ak jàmm moom mi nga xam ne moom la yàlla mujjal ci ñam doon wax yu di leen yebal ci nit ñi ñaan it waa këram ak ay saxaabaam yi nga xam ne ñoo jaayante woon ak moom ca la mu nekk lu mu leen digal ñu def lu mu leen aaye ñu bàyyi ñoom itam mu ñaan yàlla boole leen ci teraanga ja ak jàmm ja gannaaw nag sant yàlla julli ci yonte bi mu ne damaa gis nit ñi ñu ci bari bëgg nañoo topp yàlla ak yonante bi waaye nag ñàkk xam ak tayeel da leen a jàpp mel ne man dane mel ni man ma gisee loolu nag ma ne kon naa taalif téere bii andi ci xeeti njariñ yoo xam ne yenn yi day aju ci àdduna yenn yi aju ci alaxira di yaakaar yàlla defal nu téere bii muy sunu amukaayu mucc ci lépp luy xeetu mbugal ak lépp luy xeetu tiis ci yaari kër yi tur yi nag ni ko waxee léegi nee na mooy majmahun nurayni fi fawaidi daarayni kon nag nee na maa ngi tàmbali te wax nag laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azim maa ngi tàmbali taalif te dellu dëggal ci saa xol ne ab jaamkat amul pexe amul kàttan yàlla moo am pexe moo am kàttan moom moo mën a may ab jaamam pexe ba jaam bi sori ak mooy moo ko mën a may kàttan bu mu dëgër ba toppee ko na mu kon nag yàlla moomu laay sukkandikoo di sàkku ndimbalam ci téere bi may taalif ak ci meneen mbir mu mën di doon faa'idatun lii njëriñ la al imaanu gëm bil qadari ca dogal ba talaasatu ashyaa yetti yëf la al awalu ba ci jëkk an tu'mina moo di nga gëm wa tusaddiqa te ngay dëggal wa tuxaqiqa te ngay wóoral ne anna kullama naka lépp loo xam ne waqaxa xew na fil wujoodi ci mbindeef yi wama ak la nga xam ne sa yaqaxu xalsat naa xew saabiqun aji jiitu la fii xilmihi ca xam-xamam ba taxalaa kawe na wa iraadatihi akuk nammeelam xilaafan loolu nag nekk di lu wuteeg lil qadariyati ñeel gis-gisu kuréel bi ñuy wax alqadariya majoosi haadihil ummati ñay majoosi wuli xeet alqaa'iliina ña dee wax bi anal amra ci naka mbir ma unufun li mu xam xam gu yees la ngir mu ne xam nga ko yàlla xam xam gu yees lay doon mooy day xew day xew ba noppi rek mu door koo xam bi ma tey ni ci ñaari bàmm unu fun boo ko dee bind am sa gi danga koy maas maas ko lonk noon gi nga maas ko maas ko lonk faa gi nag moom moo mujj ci baat bi dafa takku rekk ci inrab bi bu waree maas yat maas ko bu waree maas lonk noonu bu waree maas yaari maas ka it noonu ay li mu ci namm mustanaful ilmi mu ngi sos ak xam la xaadisun te aji sosu la lam yataqaddam jiituwutoon dafa ñeel ko xadarun ab dogal wala xilmun tu caageenu xam bil umumi ca mbir ya qabla wujoodihaa ci njëkk seenug am wa innama yetta annafuha naka dina leen sos xilmun ci xam xaala wuquuxihaa ci waxtu seenug xew fa haawulaa yi laa xilaafa amul genn xeetu wuute fii kufrihim ci seenug weddi yàlla li annahum gis naka ñoom nafaw dàq nañu alxilma xam-xamu yàlla ba alxadiima bay aji jiitu waqadin xaraboo waaye ñoom nag fër nañu mooy dee nañ ba jeex qabla zuhuri shafii yi ci njëkk feeñu al imaami shafii yi waqad lu aynoo te rëbboof na leen xalaalisaani sabihiina ci làmmiñu juróom-ñaar fukk nabi yéen ci ay yonante wa fil xadiis nekk na ci hadiis in marido ndeem tawat nañu fala ta'uduhum bu leen leen seeti wa in maatoo ndeem faatu nañu fala tashhaduhum bu leen teewe seeni tàdd sëñ bi doon njëriñ moom laa njëkk andi ci téere bi mu aju ci gëm ab dogal du ab dogal nee na ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy da ngay nangu ci sa xol ne lépp lu am mbaa amagul sax waaye dana am yàlla da koo xamoon rëdd ko sàkkal ko waxtu ak dayo boo xam ne bu ci àggee du ko weesu na ko rëdde woon rek dara du ca rëcc tombe amut mu ne loolu nag wuute naag ñi ñu tuddi alqadariyatu mooy ñu ñàkk ñàkk solo ñoom nañ jàppe wuute naag noona ñoom dañoo wax ne mbir mu ne bala ko yàllaa xam day am ba noppi rek mu door koo xam waaye amutoon benn xam-xam bu jëkkan loola mel na kon ñoom daanaka xaw nañoo weddi ab dogal ndax ndegam yàlla mbir di xew ba noppi rek ci ñoom seen gis-gis yàlla door koo xam mu ne ñooñu seenuk wedd yàlla moom amul benn werante ñëpp daje na ci ñi ëpp ci ñoom nag dee nañu ba jeex ci jamono yu njëkk ya laata al imaamu Shaafi yi moomu bokk ci borom yent ngir yi di feeñ sax fekk na ñooñu dee ba jeex mu ne nag ñu mel noonu di weddi dogalu yàlla yonante yi dañ leen daan rëbb naka jekk ba mën nga ne ñooñu lu juróom-ñaar fukk ci ay yonante rëbb nañ leen ndax tax sunu yonante bi itam fedd li rëbb googee ba àgg ci ne ñu mel noonu bu ñu tawatee bu leen leen seeti bu faatoo itam bu leen teewe seenug jullee ak seenug suul attaani ñaareel bi an tu'mina moo di nga gëm wattu saddiqati ngay dëggal ne annahu naka moom yàlla taxala kawe na xalaqa bind na alxibaada jaam ña wa afaalahum ak seeni jëf xilaafan lool nag mu doon lu wuuteeg lil mu'tasilati ñeel xalaatu kuréel bi tudd al mu'tazila al qaa'iliina ña way wax bi anna allah ci naka yàlla taala xalaqa bind na alxabda jaam ba wal xabdu waaye nag jaam bi yaxluqu dana bind mooy dana sàkk afaxaalahoo ay jëfi boppam fa haawulaay ñii fii kufrihim nekk na ci seenu weddi xilaafun ak wute waxad nataqa te tudd na alquraanu alquraan bi takdiirihim ci seenug fenloo fi iddati mawaadiha ci lu bari ci ay béréb ka xawlihi taala wallaahu yàlla xalaqakum sàkk na leen wooma ak la nga xam ne taamaloona dangeen ko jëf ak wallaahu yàlla xalaqa bind na mooy sàkk na kulla shay'in mépp mbir wa xayri ak lu dul loolu ñaareel bi nee mooy nga gëm ne yàlla kat ni mu sàkkee jëmm yi noonu la sàkkee jëf yi nga xam ne mooy bàyyi ko ca jëmm ya yàlla moo sàkk jaam bu ne te jëf ya mel na jaam baa koy jëf ci zahir ci dëgg-dëgg yàlla loolu wute naag li nga xam ne moom la kuréel bi tudd al mu'tasila xalaat ñoom dañoo xalaat ne yàlla moo sàkk jaam bi waaye bi mu ko sàkkee ba noppi nag la ca noppi jaam bi ci boppam ay jëfam moo koy defal boppam yàlla doonu ca dara ñooñu nag woote nañ ci ndax daañu leen jàppe ay yéefar wala déet wax ja gën a mooy waaw daañu leen jàppe ay yéefar alxuraan wax na ba tàyyi ci ay béréb béréb ne yàlla moo sàkk jaam ñi mooy yàlla moo sàkk mbindeef mu ne moo sàkk it jëf ja nga xam ne mooy bàyyi ko ca mbindeef ma wax na bu wóor ne wallahu xalaqakum wa ma taamaloon yàlla leen sàkk sàkk la ngeen di def wallahu xalaqa kulla shay'in yàlla sàkk leen lu ne loolu ëmb na lépp lépp bu ñu nee yàlla sàkk mbindeef jëf ya muy jëf itam moom yàlla moo ko def day mel ne jëf ya muy jëf wari su ko caa topp dara dara bi ñu wax ne jëf ji moo ko jëf muy lu baax ba fay ko ca aw yiw wala jëf ji moo ko jëf muy ab safaan ba di ko ca teg aw metit loolu la xel di gaaw jàpp waaye ci pas-pas bu sell dañuy jàpp ne bi yàlla sàkkee doomi aadama sol ci moom am xel nga xam ne dana ko xamal ne ko leekat lu lay lor la moytu ko leekat lu am njariñ la wuti ko ba nit ki àgg na ci mu nekk ci àdduna bu gëmul yàlla it xelam dana ko wan ne ko leekat lu lay gaañ la mu daal di koy moytu leekat lu am njëriñ la mu daal di koy wuti ki gëm yàlla nag moom yàlla da koy xamal ne ko lii laa bëgg lii bëgguma ko defal naa la am xel nag te nee nga gëm nga ne man am naa te maa la sàkk te man nga war a jaamu lii daal laa bëgg boo ko defee ma defal la lii lee nag bëgguma ko dama koo bañ boo ko defee ma def la nangam li feew nag nit mu ngi ànd ak sagoom di mu kàllaf boole ci yàlla nga koy àtt rek ci ànd gi mu ànd ak sagoom mel ne mën naa tànn ci leelu baax la mu jëm ca yàlla dimbali ko ca ak lee safaan ba la lu bon la mu moytu ko yàlla dimbali ko mu sori ko nde gone kenn du ko topp dara ab dof kenn du ko topp dara ku andut ak sagoom rek ak lu mu bari bari ay at jàpp wuñ ko ku ñu teg dara ne ko defal nangam baa bul def nangam kon yàlla moo sàkk aw yiw la am njëriñ sàkk aw ay lay lor lu ci nekk mu wutal ko bunt may doomi aadama xel xamal ko nag ñaari bunt yooyu ne ko lekkat mooy bunt bi yiw soo bëggee lu baax awal ci bunt bee lekkat mooy buntu ay bu bëggee mucc bul ci aw doomi aadama ànd ak xelam nag di xool bu dee ci àdduna sii noonu la ci defee du nangu rek ne lépp yàlla daal di fas ay loxoom ci wàllu àddunaam day seet lam defee ne amal na ko njariñ muy waaxu di ko wuti la ko wóor ne da koy lor mu di ko daw na def noonu nag ba tey ci wàllu diineem la yàlla digle doonte xamut njëriñ la ëllëg ak fa ko yóbbu ëllëgee it te nga xas na gëm rek na cay sabablu kem kàttanam la yàlla aaye te muy indi ngaañ bu ëllëgee di indi mujj gu ñaaw di sabab mbugalum yàlla it mu di ko xàmmiku gëm ne rek mooy indi lor mooy indi mujj ñaaw bu ëllëgee ab taalisu ñetteel bi an tu'mina moo di nga gëm wattu saddiqa te ngay dëggal ne anal xayra naka yiwwa wa charra ak aywa maxluuqaani yaar yu ñu sàkk lañu lillaahi ñel yàlla taxalaa kawe na xilaafan loolu nag doon lu wuuteeg lil maanawiyati ñeel kuréel bi ñu wax almaanawiya asxaabi maaniyin ñay gaay maani yi alkazaabi ma di ab fenkat alqaa'iliina ña doy wax bi anna faaxila charri ci naka aji def ay ak zulmatu moo di lëndëm waxat nataxa tudd na alquraan alquraan bi takzibihim ci seenug fenloo fi xawli ci waxam jëmu ne wa jaxala te mu def mooy te mu sàkk moom yàlla ak zulumaati lëndëm ya wan nuura ak leer ga fa man afrada ku wéetal allah yàlla taxala kawe na bi haadihil ashiyaay ci yëleef wala may jaxal te defut di xëy di ñeel ku dul moom fii haa ci yëf yooyu nasiban benn cër foofu kon moom mu'minun aji gëm la bil qadari ca dogal ba ay la mu ci namm man taxaqaqa ka nga xam ne moo wóorlu te dëggal ne anna kullama naka lépp loo xam ne waqaxa xew na wa maag la nga xam ne sa yaqaxu xalsat naa xew min xayrin ci aw yiw wa charin aku ay saabixun aji jiitu la fii xilmihi ca xam-xamam ba taxalaa kawe na wa annahu ak naka moom kataba bindoon na daalika loolee indahoo fa moom wa ahsaahu te mu takk ko mbaa mu lim ko wa su sudooral kainaati ak naka bàyyikook mbindeef yi naka xewook mbindeef yi baax na daal ci gannaaw loolee yajir yi day daw rek xalaamaa ci kem li nga xam ne sabaqa jiitu woon na fi xilmihi ci xam-xamam ba taxalaa wa kitaabihi ak mbindam ma ca allahul mahfuz wa annahu ak naka moom xalaqa bind na ibaadahoo ay jaamam wa afxaalahum ak seeni jëf wa annahu ak naka moom huwa moom xaaliqul xayri mooy aji bind yiw wa sharri ak ay wa man saxama ku wax ni annahu naka moom yàlla taala lam yasbiq jiituwutoon la ñeel ko qadarun ab dogal wala ilmun du caageenu xam bil asiyaay ci yëf ya qabla kawniha njëkk seenu am seenu nekk mooy seenu am wa innama yaalamuha naka da leen di xam rek baada wuquuxihaa ci gannaaw seenu xew aw nasaba walla mu askan ilaa nafsihi jëm ci boppam aw il aw ilaa maxluuqin wala jëm ci mbindeef maa mu mën di doon qudratan kàttan xalaa shay'in ci dara wa in qalla ak doonte tuuti na aw dàq wala mu sew aw annahu wala naka moom qaddara dogal na alxayra wa shara ak ay wal kufra ak weddi wal maasiyata ak mooy fa laysa bi muminin du aji gëm bil qadari ci ab dogal ñetteel bi mooy nga gëm ci sa xol mu wóor la ne muy yiw muy ay lépp yàlla du rekk dañ ne aw yiw mën naa am wala aw ay am ci genn wet te du ci yàlla la bawoo loolu nag wóote naag li nga xam ne moom la kuréel bi tudd almaanawiya di wax ñoom dañuy wax ne ay foo ko fekk lëndëm moo ko sos mel ni kon yiw ba tey leer moo ko sos dañuy askan ay jëme ci lëndëm askan aw yiw jëme ci leer mooy nag alquran weddi na loolu ba set ndax alquran nee na wa jaxala zulumaati wan nuur man yàlla maa def lëndëm ak leer maa sàkk lëndëm ak leer lëndëm ak leer amu ci lenn loo xam day yàlla ju mën a amal dara dara man yàlla maa amal lëndëm ak leer mu ne yett yi boo ko boolee gëme na ab dogal sa gëm mat na mooy nga gëm ne amul dara lu tomb rekk am mbaa luy rëtt rekk am loo gis rekk yàlla dafa xamoon ca bu jëkk rëdd it ne nangam dana am ci béréb sàngam ci waxtu sàngam deme nangam bi àggee ci waxtu woowu itam mu deme noona nga gëm loolu gëmit ne lépp lu nar a am la ci jëkk ba la ca mujj yàlla xam na ko bu rekk day bàyyi ba dara am ba noppi mu door di ko xam déedéet leen lu ne lu mu xamoon la dogaloon ko te dara du ca rëcc dara du ca tombi rekk am nga gëm loolu gëm na it amul jeneen yàlla joo xam ne mën naa amal dara lu bokkute yàlla rek jëfi yàlla wuuteeg ñee jàpp ne lëndëm yàlla la joo xam ne mooy sos ay mbaa yàlla la joo xam ne mooy sos aw yiw déedéet lépp rek yàlla muy lu neex muy lu naqari muy yiw muy ay muy weddi muy mooy lu mën doon rek yàllaa ko dogal ko bokkute yàlla ci gàttal rek jëfi yàlla nee na boo jàppee noonu rek kon gëm nga ab dogal bu wér wér waaye nag soo wuteeg noonu rek sa gëm ab dogal daldi di ndax ku jàpp ne yàlla kat mbir mu ne day am ba noppi rek mu door di ko xam mel ne na alxadari yi daan waxee kooku xam ne ni ab yéefar la ku jàpp ne itam jaam bi kat bi ko yàlla sàkkee ba noppi moom ci boppam mooy jëf jëf yi muy jëf mel ne ñi ñuy wax al la ku fas la ñooñu fas wax ja gën wóor ab yéefar la ku jàpp ne itam menn mbindéef mën naa amal dara mooy jàpp ne ku bokkute yàlla rek mën naa amal dara mel ne jàpp ne lëndëm yàlla la joo xam ne lu bon lu ne moom lëndëm moo ko sos du yàlla jàpp ne leerit yàlla la joo xam ne lu baax lu ne moo ko sos ndedu yàlla loolu itam ak kéefar la gu wér a kon gàttalu gëm ab dogal mooy nga jàpp ne yàlla mooy buur bi nga xam ne leen lu ne xamoon na ko atte ca lam cee atte rëdd na nga xam ni moom la bëgg mu demee na bu àggee ci waxtu sottaloo it sottale ko noona waaye amut kenn ku mën a amal dara ku yàlla lu ne rek yàlla lu bokkute yàlla rek jëfi yàlla te leen lu ci ne nam ko rëddee woon dara du ca rëcc lam njëkk sàkk ba la mujj sàkk lépp noonu la demee faa idatun lii njëriñ la uxraa baneen madhabu ahli sunnati yoonu waa sunna isbaatul qadari mooy saxal dogal ba kama taqaddama naka mu jiitoo waalam na nga xam nag ne anna taqdira naka dogal ga anwaahun ay xeet la min hu bokk na ca at taqdiru dogal ga fil xilmi ca xamug yàlla ga wali haasa ngir lii xiila waxeef na ne alxinaayatu gat leelug yàlla ga xabla wilaayati nekkoon na ci njëkk wilaayak jaam ba wa sawaabiqu way jiitu ya xabla lawaaxiqi nekk nañ ci njëkk way topp ya wa mabniyatun te yu ñu tabax lañu alayha ci seen kaw xaala taxaala yu fakku def na walbati an hu walis gëm alquran ak yonante bi man ka nga xam ne ufika wëlbatee foon na ko ca bu jëkk ca xamul yàlla ga ay yusrafu def na wëlbati xanil imaani walis gëm al quraan ci al quraan fi duniyaa ci àdduna man ka nga xam ne sori fa walbatee foon an walis ko fil xiddami ca jiitu ga wa fil xadiisi laa yaxliku du alku xalallaahi ci yàlla illaa haalikun ndare aji alku ay limu ci nam illaa man rek nga xam ne xalima xam na ne annahu naka moom xaalikun aji alku la wa min fu bokk na ca at taqdiru dogal ga fi lawxi almahfuusi ci allawxul mahfuus wa haasaata lii yumkin dana jàppandi an yataxayara mu soppi ko dafa bind nag fa li haasa ngir lii yumkinu an yataxayara xaala taxaala yam xoo dana far allahu yàlla maa yashaaw la ko soob wa yusabitu te muy saxal la ko soob wa indahu te nekk na fa moom umul wa haasate lii yëm ki dana jàppandi anjata xayyara mu soppi ko dafa bind nag fali haasa ngir lii yëm ki nu anjata xayyar xaala taxala yam xoo dana far allahu yàlla maa yashaaw la ko soob wa yusabitu te muy saxal la ko soob wa indahu te nekk na fa moom umul kitaabi alwa ju mag ja waxan abdullahi ibni omar jël nañ ci moom ni annahu naka moom kaana nekkoon na yaqul di wax fii duhaa yi ci ak ñaanam allahumma yow buur bi in ndem nekk nga katabtani di ma bindoon shaqiyan may ku texee di famxu nii yàlla na nga ma far waktub nii te yàlla na nga ma bindaat saidan may aji texe ak taalisu ñetteel bi ak taqdiiru mooy dogal ga fi raximi ci tëmbukaayu yaay ja wa dalika loolee annal malaka naka malaaka ma yu def na ko digal bi kat bi risque ci bindu wërsëgam wa ajal yi akub àppam wa shaqawati yi akuk texeedeem wa saadati yi akuk texeem arraabihu ñeenteel bi at taqdiiru mooy dogal ga ay maanaam sottal bi maanaa sawqil maqaadiri ci maanaam jiital dogal ya ilal mawaqiti jëm ca seeni waxtu wallahu yàlla taala xalaqa sàkk na alxayra yiw wa shara ak ay wa qaddara te mu dogal ma ji ahoo dikkam nga ilal xab di jëm ci jàmm ba fii awqaatin ci ay waxtu maalumatin yu duñu xam intaha mat na minal ibris yi bàyyi ko ci al ibris lil yadaa lii radiallahu taala anhu bi ne boo xamee ni ab dogal nee lañ ko war a gëme ni waxe léegi na xam ne buñ ne dogal rek nag ay état bi lay doon étape bu jëkk ba mooy lenn lu ne xam nga ko yàlla xamoon njëkk mu di ko dogal leen lu nekk na ko yàlla xame nare ko na te bindagu ko ba di ko sottal sax bind gi rek defagu ko loolu mooy étape bu jëkk bi nga xam ne ñi nga gis gannaaw bi yàlla feeñal ci ñoom ci rëy rëy dale ca yonante ya saxaaba ya ak wàll yi yëpp rek kenn ku ci ne loolee mu amee lu ko yàlla cërale woon la ci démbi démb njëkk tey ñu weddi itam ña ci gën a metti ak weddi ak ñay bakkaaru ña ci gën a barile ay bakkaar yëpp rek loo ci gis lu yàlla xamoon la dogaloon ko daa dem nag ba toll ci war a feeñ rek feeñ nga xam ne bu alxuraan ne kulla yawmin huwa fii sha'n bis bu ne suñu borom ngi nekk ci mbir nee du mbir mu yees mu muy door xalaat bu doon mbindeef di ko seet nu mu koy sottaleeg dara mbir li ñu mu dogaloon àgg ci waxtu wa nag ca bis boobee war ko caa soppal nag waaye du lu yees loo xam ne da koy sos ci xam wala ci xereñe wala ci rëdd ku nekk ab yonante mbaa mu nekk waliyu yàlla xamoon na ca bu kii dana nekk ab yonante mbaa nekk waliyu nga xam ne kon loolee lu ko yàlla cëral woon ca bu njëkk tey ne looloo tax yàlla ne am na ñu weddi te man yàlla naka jekk xamoon naa ne dañuy weddi xam googee ma xamoon it moo mënta topp moo tax bi yonent bi wootee ñu weddi ko weddi alquran loolu xam nga mu ko xamoon te bu njëkk loolu rek a sar dara soppi ca ak ba ak ba addis ba ne koo gis mu alku rek fekkoon na yàlla xam ne kooku moom ci alkande la jëm du mucc kon état bu jëkk bi ci dogal mooy xam gi yàlla xam lépp lépp lépp njëkk dara di ca feeñ mbaa menn màndarga mu koy wane di ca feeñ étape bu ñaareel bi nag mooy la yàlla nara dogal ba noppi nag wax xalima ga ne ko bind ko ci alluwa ja la yàllay dogal te bind ko ci alluwa dafa doon ñaari xaaj am na alluwa joo xam ne lu njëxas bind du nga ko farati mukk mukk am nag alluwa joo xam ne lañ ca bind bu soobee yàlla mu far ko bu ko soobee itam mu saxal ko moo tax mu ne yamxu llaahu ma yashaau wa yuthabitu wa indahu umul kitaab xam gi ñenn ci jaam yi xam ne yàlla am na lu mu rëdd te mënees na ko ñaan ba mu far ko amul rëdd loo xam ne kenn mënut tax mu far ko loolu tax na ñenn ci ay jaamam dañ ko daan ñaan léegi Abdullah ibn Omar danaa ñaan yàlla naa suñu boroom su fekkee da ma bindoon ne ibnu xomar mii kuy texee di la kon faral mbindam ba mu set te bind fa ne ibnu xomar mii kuy texe la état bu ñetteel bi mooy bu jaam bi tolloo ci doon mbóomur yaayam ëmb ko ci biiram foofa yàlla xamoon na ko jekk mbirum jaam boobu waaye ba jaam ba nekkee ci biirub yaayam la yàlla yebal am malaak ne ko boo demee nga bind ne jaam bii day wërsëgam nangam lay toll ab appam nangam lay toll bindalit ndax kuy texe la am kuy ñàkk texe la yent yooyu bu nit nekkee ci biiru yaayam la yàlla yebal malaaka ne ko bindal loolu loolu kon mooy état ñetteel bi état bi ci mujj nag moom mooy rek la yàlla xamoon nar ko te lu ne mu sàkkal ko waxtoo bërëb bu àggee ca waxtuwaak bërëb ba nag sottal gam koy sottal ba tey loolee dogal lañ koy tudde muy état bu ñeenteel bi mel ne jaam bi di ko yàlla rëddal ci lu neex mbaa lu naqari mbaa am mbaa ñàkk mbaa tawat mbaa wér mbaa bànneex mbaa naqar lu ci nekk ba àggee ci waxtu wa nga xam ne ca la ko yàlla rëddoon ne ca lay amee rek li yàlla yi jiital loole nag mu dal ci kawam mu taseeg moom te du ca mën dara mu ne noonu la ko Aliou yi andee ca al idris faidatun li njariñ la uxra baneen inna li yawmil qiyaamati naka ñeel na bis penc ni ata alfi téeméeri junni tiit kullu waahidatin benn bu ne min xaa ñoom ashaddu moo gën a tar moo gën a metti min maraaratil mawti ci waxtanu alfa marratin junni yoon faman araada ku bëgg an yàq yaxoo bu ko fegalee allahu yàlla min tilkal ahwaali ca yooyale tiit falyadum na sax ala haadihi alkalimaati ci lay baat alxasriya di fukk masaan ci ngoon wa sabaan ci suba baat yi mooy walikulli hammin wa ghammin ma sha allah walikulli dawxin xasbiyallah walikulli bala'in ista'antu billah walikulli ujubatin subhanallah walikulli shiddatin wa raxain ashukru lillah walikulli niamatin alhamdulillah walikulli qadain wa qadarin tawakkaltu ala allah walikulli dambin astaghfirullah wa li kulli musibatin lillahi wa inna ilayhi rajiun wa li kulli wa maasiyatin la hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim mu ne lii beneen njëriñ la bu mat a jàpp mooy dañ na bis am na téeméeri junni tiit yoo xam ne benn bu ca ne moo gën a metti dee junni yoon téeméeri junni tiit yoo xam ni daal tiit mu ca nekk ci bis moo gën a mettee dee junni yoon ku bëgg nag yàlla fegal la mboolem tiit yooyee na nga saxoo wax baat yi suba ngoon gu tàmbalee ci wali kulli hammin wa ghammin masha allah ba fa mu daanoo faidatun lii benn njariñ la man araada ku bëgg an yaraa mu gis annabiya yonante ba sallallahu alayhi wa sallam fal yaqul na wax fii laylatil jumahati ci guddig ajuma baxda salaatil xishaayu ci gannaaw julli gee xinda marqadihi fa ab tëddukaayam wala xinda marqadihi fa ak namma tëddam nelaw ni allahumma inni as'aluka bi quwwati rububiyati wa azamati samadaniyati wa satwati l olohiyati wa izati l jabarutiyati wa qidami l fardaniyati wa qudrati l azaliyati an tusalliya wa tusallima ala sayidina muhammad wa alihi wa an turiyani wajha nabiyika muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam ba tey mu ne lii beneen njariñ la ku bëgg a gis yonante bi sallallahu alayhi wa alihi ngay bàyyi ba guddik ajjuma gannaaw boo jullee gee bay tëdd nag nga jàng ñaan gii benn yoon yàlla mën na laa woon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faidat lii jëriñ la oxra beneen li am nil xawf ñeel wóolu ci ak ragal maanaam mucc ci la nga ragaloon taqaraw da ngay jàng suurata li inaafi qurayshin saaru li inaafi quraysh sabaxa marraat juróom-ñaari yoon suma taqaraw topp da nga wax allahumma yow buur bi innaka naka yow aminun yaay aji wóolu min kulli shay'in ci mépp mbir wa kulli shay'in te mépp mbir lépp dara xaayifun aj ragal la min ko ci yow fa bi am ni ci sag wóolu min kulli shay'in ci lépp dara wa lépp lëf min ci li nga xam ne axaafut ko ragal innaka xalaa kulli ci mépp waxee day fa innahu naka moom ya mënu dana wóolu ba dana mucc min kulli shay'in ci mépp mbir mu ne lii ba tey beneen njëriñ la soo amee loo ragal te bëgg yàlla musal la ca li mën doon da jàng li ilaa fi quraysin juróom-ñaari yoon teg ca ne sunu boroom yow day yaayu ki ragalul dara dara dara te dara lu ne ragal la ma lay ñaan nag ci wóolu nga wóolu ba ragaloo dara dara ak ragal gi nga xam ne moom la la lépp lépp ragal loolu ci laa lay ñaan man mii nga musal ma ci lii ma ragal ndax yow lépp nga man ñaan googu nee na saa yoo ko waxee rek dara dara dara du la mën a lor say boo xam ne mucc nga ci la nga ragaloon ak lu mu mën doon fa idatun lii njariñ la oxra baneen taqra'u da nga jàng fii laylati nisfi ci guddig xaaj ba min chaban ci chaban mi baraxlu suurata yaasin saaru yaasin talaatan ñetti yoon bi talaasi niyaatin ci yetti yéene al ba jëkk bi niyati toolil xumuri ci yéene yàggug dund maanaam ci yéene gudd aw fan wattaaniyatu ñaareel ba bi niyati davail balaa i ci yéene fekk balaa jiñ balaa mooy mucc ci balaa wa taalisatu yoonu ñetteel wa bi niyatil istixnaayi ci yéenee doylu anil xalqi walis mbindéef yi tumma taqraw topp da jàng haza duha gi ne ñaan mu tàmbalee ci allahumma yow buur bi yaa dal manni yow boroom xéewle ga wala yu mannu te deeful alayhi ci moom wa yaa dal jalaali yow boroom màgg gi wal ikraami ak teral ga wa yaa dat tawli yow boroom xéewal ga dana firi ba tey boroom kàttan nga wal inhaami ak xéewle ga laa ilaha amul benn buur illa anta ndara yow zahrul laaji yaay gannaawub way wéeru ña wa jaladul tey làqutukaayu way làquña wala nga ne tey dooley way làquña aljaladu di amee maxnaam alquwatu di amee maxnaam ashiddatu wa ma manul xaa'ifiina tey wóolukaayu way ragal ña asaluka dinaa la ñaan allahumma yow buur bi in kunta ndem nekkoon nga katabtani di ma bind fi ummul kitaabi ci ummul kitaab shaqiyan may ku texee di aw matrudan mbaa may ku ñu dàq aw maxruman mbaa may ku ñu xañ aw muqtaran wala may ku ñu xatal xale ci man fi risqi ci wërsëg famhu yàlla na nga far bi fadlika ci sa chaqaawat yi sama texee di wa xirmaan ak sama xañ wa iqtaara risque ak xatal saa wërsëg wa ak bit nga soxal ma fi ummul kitaab bi ci ummul kitaab saa idan may aji texe marsuuqan tey ku ñu wërsëgal mu wafaqan tey ku ñu tawfiqal ma tey ku ñu dëppale lil xayraati jëm ci yiw ya fa innaka naka yow xulta wax nga fii kitaabika ci sa téere bi al munzali ba di buñ wàccee xalaa nabiyika ci sa yonante bi al mursali ba di buñ yónni ne yam xoo dana far allahu yàlla maa yashaaw lu ko soob wa yuthabit te saxal la ko soob wa indahu te nekk na fa moom umul kitaabi alwa ju mag ja umul kitaab buñ ko firee alwa ju mag ja dañ ca jublu la yàlla xamoon ca njëkk a njëkk tamit loo xam ne du ku mukk mukk mel na ne kon daañu jëfandikoo umul kitaab ci béréb boo xam ne ay maxnaam allawxu almahfuz maanaam amee fa maxnaam allo ja nga xam ne la ci yàlla dogal bind ko ca bu ko neexee soppi ko bu ko neexee bàyyi bañ a soppi dana lii beneen njariñ la daldi ne guddik fukki fan ak juróom ci baraxlu maanaam guddi gi nga xam ne bu ñu yeewoo ci suba sa moom la màggal màggalu daarul moot yi guddi googee mooy guddik nisfu Sha'ban bi na nga cay jàng sóoratu yaasin yetti yoon te yoon wu ci ne am yéene boppam yoonu njëkk wa da nga ci yéene yàlla may la fan wu gudd yoonu ñaareeloo nga yéene ci yàlla fegal la lépp luy balaa daray balaa musiba bañ laa laal ñetteel bi nga yéene ci yàlla may la wërsëgu yaatoo yaatu wu lew ba doo aajoo jëm ci kenn da nga doyal sa sëkk ba doo soxlaal kenn ci mbindeef yi dara boo jàngee nag yetti yaasin yi àggal nga teg ci ñaan gi tàmbalee ci allahumma yaadal manni wala yu mannu alayhi ba ci wa indahu umul kitaab li muy firi yow yàlla mi nga xam ne yaay xéewle ñu war laa sant waaye yow kenn du la xéewal yaay boroom màgg gi yaay boroom tedd ga tey terle yaay boroom xéewal yow rekk yaay buur kuy wóoru na ci yow kuy làqu yaay ab làqutukaay ku ragal na ñëw fatu fi yow dal di mucc maa ngi lay ñaan bu fekkee ne dangaa bindoon ne man mii sab jaam laa boo xam ne day texee di maanaam day ñàkk texe ñu dàq ko ci yërmande xañ ko yërmande xatal wërsëgam ba wërsëgam xata xat bu fekkee li nga bindoon dama lay ñaan nga far ko ci sa mbaax sa ngëneel dal may saxalal nag safaan ya muy saxalal ma ak texe ak barik yërmandeek wërsëg dëppale maag mboolem lépp lu baax ndax yow yaa wax ci sa alquran ji sa doonante jottali ne yamxullaahu ma yashaa'u wa yuthabbit am na looy bind ci alluwa jala soob loo xam ne dogguwoo ci ne duma ko far bu la neexee far ko bu la soobee bañ koo far loola tax ma lay ñaan su fekkee dangaa bindoon ne man sab jaam laa buy texee di bu ñuy xañ yërmande bu ñuy xatal wërsëgam faral lool ba mu set te bind ne sama jaam bii kuy texe lay doon ku ñu musal lay doon ku ñu yaatal wërsëg lay doon ku ñu dëppaleeg lépp lu yiw lay doon faidatun lii njariñ la oxra baneen inna li yawmil qiyaamati naka ñeel na bis ñaan gi nga dégg léegi ñu weesar ko mu bokk ci ñaani cosaan yi sëñ bi da ko woy boo jëndee téere buñ tuddee addiyatu sanati muy ñaani at mi ñaani nekk ci biir at mi da ko ca fekk mook ñaan nga ñuy ñaan ci tamxarit ak bis bu at mi teroo ak bis ak bis bu mujj ca at ma yu bare bari amoon na ci téere cosaan yi sëñ bi nag lu ci nekk da ko woy ñu boole leen nag ci téere boobu mën ngaa wut nag téere boobu di jàng la sëñ ba woy muy ay ñaan te bàyyi ñaani cosaan yi ñaan gi nga dégg la bu ko sëñ bi tàmbalee ci yàllaahu dal man ni lazi laysa mu man alayhi juddliya bi yaasiin bi minan faidatun lii njariñ la fii talaafi birril waalidayni ci dabaatal topp yaari waajur nazman ci way salli na nga julli rakk xatayn ñaari rakka fii laylatil xamiisi ci guddi alxames bil kursi ci ayatul kursi wal ixlaasi ak lixlaas wal mu wal muawwidatayni ak yaari qul a'uuzu yi waaye nag yooyu moom wal muawwidatayni rek na ne moom la jàng wal muawwidatayni xamsun juróom li kulli suuratin ñël wépp saar xalaat tamaami ci mat ga wastaxfir nga jéggulu allah yàlla yoxin fukk ak juróom ba àdd salaami ci gannaaw sëlmal kazaaka naka noonee misluha ci seenum kem maanaam li mu fukk ak juróom rek mina salaatu ci julli ala nabi rahmati ci yonanteb yërmande ja al muhdaati juñ maye mooy ji yàlla maye wajaxal te nga def sawaaba za tuyaabay lii waa liwaali day ko ñeel sa yaari waajur tabrar xuma kon nga topp leen ñoom ñaar bu kullimaa ci lépp loo xam ne ko waroon na la lii beneen njariñ la boo xam ne ku sàgganoon ci topp ñaari waa waajuram te bëgg koo dabu nag moo koy def mooy day bàyyi ba guddi alxames guddi alxames mooy buñ yendoo àllarba ba jant bi bu guddi googee nga xam ne buñ xëyee moo doon bëccëgu alxames guddi googee mooy guddi alxames te lay julli ñaari rakk yoo xam ne rakk bu ci nekk gannaaw faatiha tey jàng kursi yu juróomi yoon jàng xul huwallaahu ahad juróomi yoon jàng bi rabbil falaq juróomi yoon jàng xul ahudu bi rabbin naas juróomi yoon bu ñaar ràkk yi matee nag ba mu sëlmal mu jéggulu yàlla boroomam fukki yoonu juróom teg ca yonante bi fukki yoonu juróom ne saa boroom nag lii day dama ko yéene sama yaari waajur ya yàlla na ko àggale ci ñoom ku def lii nee lépp loo sàgganoon ci topp sa yaari waajur xamal ne matal nga ko ba dara desatu ca lépp mat na sëkk da cee teg aaxaru waaye mel na ne uxraa lay doon mooy uxraa lii beneen njariñ la salli na nga julli bi kulli jumhatin ci bépp bisu ajuma atak boobu dikk na lakka ñeel li rakk xatay ni ñeel ñaari rakka bi zulzilat ci suratu zilzali fiihima ci ñoom ñaar min baadi ummi dikri ci gannaaw fatiha xamsata xajara fukk ak juróom te mënu kon na nga wóolu min dayxin ci aqat wa daxtatil xabar ak najub bàmmeel way wee tax ñu def xabar waaye wa daxtatil xabri moo doon cosaan wa mahasa ànd ak lii takkoom da nekk mislaman di kem koo xam ne xaraa jàng na kullal quraan yi léppi al quraan xamsatan juróom wa xasharan ak fukk bu àggee ci ajjuma dangay fexe ba julli ñaar ràkk yoo xam ne gannaaw faatiha ràkk bu ne dangay jàng sóoratu zilzaal yi wa ida zulzilati fukki yoon ak juróom daal di sëlmal bu ñaar rakk yu matee rek foofu lay soo ko defee rek da mucc ci xataayu bàmmeel ak naj ga nga xam ni moom la bàmmeel naj borom bàmmeel ba boole ca nag day mel ni wàcce nga alquran fukki yoon ak juróom kon loolu ajjuma lañ koy def muy ñaar rakk yooyu faa'idatun li njëriñ la uxra baneen qaala nabiyu sallallahu taala alayhi wa sallam li xali ibni abi talibin karamallahu wajha yaa aliyu yow aliyu ida adxalta ndéem nam nga dugal xaruusan ab daaraka sa kër faxla summi na alayha yaari dàllam waxsil te raxas rijlay xaa ñaari tànkam warusha te wis bi ci moom arkaanul bayti côté néeba fa inna allah naka yàlla yoon silu dana wàcce alaykuma ci yéen ñaar sabbahina juróom ñaar fukk barakatan ci ay barke min rahmati ci yërmande yaa aliyu aliyu tamna na nga aaye alanrosa séet ba anta akula muy lekk fii usbuhiha ci ayu bisam gu jëkk talatat asiya yett yëf allabana soow ma alxaamida may aju forox wal xalla ak benegar wa tufaaxa ak pom fa innahunna naka ñoom yuf sidna danañu al arxaama njurukaay ya wayam na ana tere mooy dañuy fekk alwilaadata jur ga muy am nga doom yaa aliyu ijxal defal yaddaka sa loxo xalaa rasiha ci kaw boppam wattu te nga jàng ayatal kursi yi wa suurata yaasiin wa qul huwa allahu ahad talaasa marratin yett yoon wa qul nga wax ne allahumma yow buur bi anta yow rabbi yaay sama boroom wa rabbuha tey boroomam wa fiq yàlla na nga dëppale bay nii sama diggante wa bay naha ak digganteem innaka naka yow qadirun lay aji àttan xalaa kulli shay'in ci mépp mbir war suqu nii ci moom risqan wërsëg yow qadirun aji àttan nga xalaa ci na nga nu wan manaasikana sunuy jaamukaay wa tub te yàlla nga jéggal xale naa ci nun innaka naka yow anta yow ak tawwaabu yaay nangukatu tuub ba arrahimu mu koy aji bari yërmande wala xawla wala quwata illa billahil aliyil azim yaa aliyu laa taati bul dikkal zawjataka sa soxna xataa taquula mbate nga waxee bismillahi rahmani fa in lam tafxal ndem defoo daalika loolu kaana kon nekk ak seytaanu seytaane sharika ka di aji bokkaaleeg yow fil amwaali ca alal ya wal awlaadi ak doom ya yaa aliyu laa tanzur bul xool farja zawjatika sawukaayu sa soxna indal jimaaxi fa booloo ga mooy fa jote ga fa in qaddara ndem dogal na allahu yàlla baynakuma seen diggante wala dan doom yakunu mën naa nekk ama di aji gumba wala tatakallam te bu wax xindal jimaahi fa booloo ga fa in qaddara ndem dogal na allahu yàlla baynakuma seen diggante wala dan doom yakunu mën naa nekk axrasa di aji luur yaa xaliyu laatu jaamia bul booloon